dafa ñaan lépp loo xam ne lu du jaamu yàlla ak jàng ba xam li nga war a xam ñu tarbiya la ba nga mel ni ni nga war a mel ñu ko fi def bu kenn seetaanit ku ko fii def ndax barab la boo xam ne daara la joo xam ne jàng ak jàngale ak yar rek moo ko tax a jóg kon nag bu ñu demee ba wàlliyaan yi nga xam ne tey diine taxul ñu ñëw fi diine taxul ñu ñëw fi li tax ñu ñëw fi lépp lépp lépp mooy sakku si taraangee adduna cap kon ñooña buñ bëggee ñëw yàqal ñi diine taxa na jóg boo boobaa kenn ku ne am nga ci responsabilité bu wér a wér responsabilité bi nag alxuraan da koo tënk muy lan yaa ayyuha llazina amanu an anfusakum wa ahlikum naara muy kenn ku ci nekk da ngay fexe ba tàmbaleel ca sa say soxna ak say doom ak képp koo kuy sa surga boo dee ab sëriñ nga dolli ca sa njabootu bopp muy sa taalibey bopp yi nga xam ne yow lañ jëbbal seen bopp at nag alaxira fexe ba lii sëriñ tubaab bëgg ci dëkkam bii daal kenn du ci jiitu sa njabootu bopp gii waaye li sëriñ Touba bañit muy xotti war may dëkk bii da nga fexe ba sa njabootu bopp gi kenn du leen ci seen duñu bokk ci bambi làmbi mbapat yooyu may wax duñ ca dem duñ ca wàlli duñ ko organiser duñ bokk ci ñi nga xam ne waxtu làmb amee wala mat si amee maanaam ñooy tàngal mag ñi di andi bruit boo xam ne kenn mësu koo xam duñ bokk ci ñi nga xam ne position politique day ci war dëkk bi wala ñuy tax ñuy ñuy ñuy ñuy noonoo ak seen ñi nga xam ne ñoo bokk yàlla bokk rasulullaay bokk sëriñ tubaa kenn ku nekk day fexe ba sa njabootu bokk nga aar leen ba lépp lu borom tubaa bëggul ci dëkk bi duñu ko def lépp lu mu bëgg ci dëkk biir sa njabootu bopp jiitu ca bu kenn ku nekk defee loolu rek def nga la nga war a boo noppee nag leneen la nga xam ne nag la ca des nag loo ca man ci lu baax ci ay wax nga def ko waaye bu ñun ñi gàddaay fekk Sëriñ Tuubaa ñëpp kenn ku ci nekk defee loolu ñeneen ñi nga xam ne alal ak teraanga dong moo leen indi bu ñu bëggee yàq bëgg ñoo yàqal bu ñu boolee suñu bopp nekk benn combattre leen dana yomb waaye nag su fekkee ne ñun ñin fekk si nag loola ci sunu njaboot la tàmbalee lay xotti war may dëkk ba ca sunuy doom ak sunuy soxna ak sunuy surga ak sunuy taalibe ca la tàmbalee kon gan li nga xam ne ñoom alal dong ak teraanga ñoo leen fi yëkkati kenn du mën a jaar seen diggante ak loola kon nag mbir mi nañ ko tàmbalee ci sunu bopp sëriñ Tuubaa am na lu mu wax wasari wasarri wasarra man yanfusu fil uqudi loolu sëriñ bi ñaanal na ne dëkk bii képp ku fi ñëw lépp loo soxla te di ko wut nanga ko sàkku ci yàlla ak ñi nga xam ne lépp lu ñuy wut ci yàlla lañ koy sàkku muy nitu yàlla yi yàlla dimbale nee na woon li nga xam ne mooy ak njabar muy ñi ñi ñiy fas mi ngi nii ñiy fas la wax ñiy fas di ca tufleeg ñiy daggi reen ak xeeti njabar yu ñuul yooyu yëpp ñaanal na yàlla musal ci dëkk bi parce que nee na loolu dëkk bu mu dugg dana jaar seen diggante ak diine jaar seen diggante ak taw it yàq seen adduna xam ngeen ne dëkk bii ci at yi ñu weesu gis ngeen fi gor su futtiku gàddaay fekk sëriñ tubaab fas yéene liggéey sukkandiku ci aw ñaxam liggéey ba am teraanga di dundal ak njabootam di leen toppatoo ci wàllu diine waaye njabar yu ñuul yooyu jóge ci sous région bi jóge Burkina Faso jóge Nigéria te bari lool ci dëkk bi kenn ca am la ante ak moom ci yabal koo xam ne kat doomi dëkk bi la mu ngàbbub xaalis ñëw jëndante ak moom marchandise bàyyi ci moom loxoom loo xam ne ca ëllëg sa ba mu dellu see lu mu ko laaj mu jox ko ko noona la toppoo ak moom ba mu xëy fakk ba xëy ndóol ba mujj lépp lu dul jeex ba joxe ko te loola ak njabar ko def xam ngeen ko fii mbooloo mu dul jeex xëy na ñàkk seen tiraanga te njabar gu ñuul moo ko def sëriñ Touba ñaanal na ko bari aana tey lu yàqu ci biir kër yi ci diggante nit ak soxnaam nit ak nit ak ay surgaam ba ci diggante taalibe ak sëriñam ak diggante ay bopp njabar yu ñuul yooyoo ko fi indi te bari na lool ci dëkk bi léegi te dëkk bi xaman mooy dellu ci yàlla buñ demee ba am lu leen te ñu dem ci ñi nga xam ne lépp lu ñuy ñaan ci alquran ak sunna lañ koy sukkandiku lépp luñ la jox alquran lay doon wala sunna loola ba léegi ñu ngi fi nit yu yàlla yàlla nit nit ñu baax ñi yàlla baaxee ñu jaar ci yoon yàlla ba am ngërëmal yàlla ba buñ téyee sa loxo buñ la nee tif tëpp boo demee sa aju faju mi fi ñoo xam ne lu ñu yëkkati jox la alquran képp lay doon ak sunna ñi ngi fi ñooñu nag bu ñu demee ba bàyyi leen fi nag dem jëli ñoo xam ne tey njabar gu ñuul ak i xiram képp lañ leen di jox loolo bu baax la sëñ tubaa waxan day ci musiba lay doon te loolu bari na fi lool dem naa dema dem ba ci fan yii dégg ma ci nañ loo xam ne moom ñëpp a ci war a taxaw mooy dem nañ ba nit yàlla yi dem nañoo dañ ba ñu gàddaay sax bàyyi seen ndey bàyyi seen bàyyi daan ñëw di wuti yàlla te yàlla jooju muy wut la ca jëtti la ci jiitu ñu war ko am mooy taw tawhid sëriñ Tuubaa dafa ne awwalu waajibin alal muridi tahsilu saadi mina tawhid taalibi bi jóg di wut yàlla ci ëttu sëriñam wala ëtt bu mën a doon tawhid lañ war a def ci moom muy doyoo yàlla ak gëm ko koñ buñ demee ba dégg ne la nga xam ne nit ñu baax ñi dañ ko daan wute ci ëtt boobu tey nga xam ne taalibe tarbiya bi da daan dem ba bàyyam sax bu amee yitte ji ko ñor sax moom mi nekk ci daara yi ji bu ñëwee bu ko taalee loxo bu ko ne tuf rek léppam faju ndax pas-pas bu sell ba mu àndaale lépp lu mu daan wut ci biir ëttu sëriñam ak barki sëriñam ci la ko daan amee dem ci ñoo xam ne ak àgg nañ ci yàlla foo xam ne sax bu ñu demee ba aalu sotalum ndox mën nañ koo naan te du leen wàññi dara mën nañoo dox ci ab sàkkete lu ñu daanu lépp pëstéef fa ko daan lay ak kii bu ñu demee ba loolee ñu daan wuti pëstéef sellal nag ñu di wuti ay pexe di dem ci ay borom njabar yu ñuul ñu di leen defal loola ngir ñu gaaw man loola am loola loolu musiba la te loola dégg naa mi ngi tàmbalee am léegi lañ daal di wuti positif ak sellal ba ti ci àgg léegi dañ koy lijjanti léegi loola nag musiba mu rëy rëy la ndax loola day dema dema dem ba dana yàq ñaari yàq ndaw li jóg di wut yàlla ñu gàttanduk ko nam ko daan wute muy yàlla kese ak pas-pas bu sell ak liggéey bi am ngërëmal sëriñam ñu def ko lijjanti léegi ci ay jabar ak sëriñi tariyaa kon ña ngi koy gàllankoor ba du àgg waaye ña ngay yàq xelam ndax dana dem a dem ba jàpp ne kat baayam ak magam ak maamam yu baax ya amoon ngërëm daan dox ci kaw yi sàkketkat kat ak naan ndox mu tàng kat mën nañaa dem a dem ba jàpp ne kat lu mel déeréen ko mayen loola muy musiba moo xam ne la ca mën a juddoo kenn xamul nu mu toll yooyu yëpp yi sëñ ci njabar yu ñuul yooyu mu di ci musal waa dëkk bi Momar Sëriñ Tuubaa nag lépp lum ñaanaan yàlla dogal na ko waaye nag daana wax ne képp ku ci bëgg a mucc da ngay jóg gàttandu ko da ngay jóg jëf nag wala sa muccal waaye doo toog fa nga nekk naa na ma ñaan gi dab doo ko wan gannaaw naa na ma ko fekk kon nag il faut dëkk bi nañ xam ne am rax dugg na ci mbooloo mu dul jeex moo xam ne yàlla taxu leen a jóg yonent bi taxu leen a jóg yàqal sëriñ bi dong nga leen taxan jóg ndax sëriñ bi noonu yam amoon démb bët bët ak bëkk démb tey la ëpp yàqal ñi fi dëkk kon nag nañu góorgóorlu fexe bañ yooyu ak ñooñu tey kenn ku nekk sàmm sa njaboot sàmm leen ci loolu ba loolu sëriñ bi bëgg lépp du du du mën a am lépp doon bañ ci dëkk bi lépp ci po ak ak ci caaxaan ak lu bu li borom dëkk bi bëgg lépp ci orma yu taxaw ci waxtu yu jot na kon ñu yamale fii waxtaan yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bañ julli ba noppi واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان رسول الله waaw dañuy ñaan góor ñi nga xam ne dañoo ne si ginnaaw ñu ñëw si penk bàyyi jigéen ñi foofu ñu mën a defay sàppe yi fu waaye toll nag mën ngaa duggantee ñu defay sàppe yi di ñaani Happen.